ginnaaw bi nu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam noo ngi sant Serigne Touba Khadimu Rasoul di jaajëfal Mamor Soxna Jaara di wax jaraw la ke Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadil Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér te woyofal ab yanam di ko ñaanal itam sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur mi fi di Mamor Soxna Jaara di ñaanal bu baax itam sëriñ Cheikh Jëmb Fall mii fi nekk di Cheikh Ibrahima Fall sunu borom wooye Fall ab yanam lool te yàggal ko fi ak mboolem buntu sëriñ Touba ak Cheikh Ibra waaye di ñaanal mboolem buntu këri tarixa yi xam naa li ñuy bëgg a jàllale. te mu yitteel ñu te tax mbooloo mi daja fi ginnaaw bi nu nuyoo koo xam ne moo fi sunu kilifa ci kër Cheikh Ibra te jataay bi suñ ko amee ba bëggal ko sunu njaboot rawatina sunuy dëkkandoo lañu ci dab di lu baax te fekkoon ñu di ko yuutu ki ñu ko jotaleel mooy jëmu ji di Cheikh Ibrahima Fall moom Serigne Cheikh Mbawor moom Serigne Alioune Fall Mbawor moom Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina Fall Ndiaga noo ngi lay siyaare bu baax Fall di la ñaanal itam sa yëg-yëg ak sa yéene ji nga xam ne ginnaaw bi nu bokkee lu baax li ñëpp bëgg muy sëñ Bamba ak Cheikh Ibra sa yéene ak sa yëg-yëg mooy fa buuxante ba ne sax yaa nga fay def la la war muy lan fexe ba nit ñi tegu ci mu mustaqim waaye bëgg sëñ Bamba ak Cheikh loola itam. bokk na ci mbooleem lu ma mos a taxawal nii nga ma cay taxawoo ba tax lu rafet lii ak yitte jéeg yéene ci tax ku xam xam ne lu baax boo ci jëmee faaw mu metti nga yëkkati nag wala nga xamale itam koo xam ne mooy sunu gan mu dab ñu ci li ñu fiy bëgg a wat li ñu fiy bëgg taxawal muy le président dama naan le président de la république sax laay wax max moom laa ko yéene mu doon ko muy Serigne Boubacar kamara di ñaan suruñ borom Cheikh Ibrahima Fall fal la ci ci barki Cheikh Ahmadou Diarra li ñu def nag ak li ñuy waxee niru na politique waaye bu fekkente ne ñi xam politique xam nañu ne mouvement bi tax ma dajale fi nit ñi ak li may waajal ab politique la du politique waaye bu ma koy def jëm ji dana tax ma def ko ngir jëmmi sëñ Touba kii dana tax ma def ko ngir jëmmi sëñ Touba ndax ku bëgg sëñ Bamba la waaye ku bëgg nag koo xam ne foo fekk nit ku néew doole nga dimbale ko waaye foo fekk lu baax saloxo sa loxo gën caa fees muy jëmu ji kon bu ñu ko doon def danañu teral defal ko kon ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaar te di ko dalal di ko xamale ak mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ fi suñu borom booleel ñu bokk nekk jaxaay ñu ay jëmm yoo xam ne yu gore lañu yu baax yu am pas-pas ak passeef ñu yar seenu njaboot ci diine waaye nag ñu gore kon jëmm ji mooy ki nga xam ne moo ñu fi gane si tey di Serigne Boubacar Camara président de la République laay wax kon di ñaan ak nuyoo waat sëriñ Abdoul Ahad Samb bi nga xam ne sunu xarit la sunu wëllëre la muy ku bëgg lu baax tey ànd seex Cheikh ma Cheikh Ibrahima Fall waxtu wu ne saa su ne ci rafetal rek lay dox luy daxase luy boole ak mbokk rek lay def lépp loo xam ne gis na ne ñu war a bokk lañ te xam na ne réeroo nu dana dox loola ba rafetal kon sëñ Abdoulahi ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñaanal sa turoon barkeb turandoo dab la ci barke sëñ Touba Xaadimu Rasul barke sëñ Abdoul Ahad Mbacké waaye di nuyu nag euh, kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal gox bi xam naa ni ko sëriñ Ngañ waxee léegi euh, waatul bu yoota min abwaabiha kon bu ñuy booy dugg ci nekk te bëgg a duggin war a fet da ngay jaar ca bunt ba bunt bi mooy imam Diagne moo fi nekk ci kilifa représentant diine ji ak lislaam ji yëpp kon sëriñ Diagne ñu ngi jël nuyu mbooloo mi ak kilifa yi nekk fii yëpp ci mbooleem jàkka yi nekk ci jaxaay 1 jaxaay 2 11 b 11 a ñëpp ñu ngi jël seen nuyu di ko teg sa loxo nga wasaareel ñu ko ci mbooloo mi kilifa yi fi teew yëpp di la ñaanal sab taxawaay yàgg ndax keroog bi ñu la waxee lii rafetlu nga ko ànd ca sag njaboot jëpp kenn kenn desul di siyaare bu baax sëriñ lay ak mboolem waa jàkk ji ñu ngi leen di siyaare te di leen balu àq di nuyu sëriñ Samba Ndiaye mi nga xam ne mooy délégué de quartier bi moom itam ñoo ngi koy siyaare te di ko balu ci taxawaay beeg jëf jéeg yëpp wax dëgg yàlla ab taxawaay rafet na ndax ci njaboot gi la bokk ndax sama wayjur sëriñ Gédé mbake mooy wasilaam kon jëmu joo xam ne xam nañu te taxawu na nu te jàppale nañu kon ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax di siyaare bu baax itam sëriñ Assane Diop ak sëriñ sàll ñoom ñi nga xam ne ay ñu yàgg a dox ci lu mel ni lii nu taxawal la muy mouvement wala développement boo maanaam euh, euh, mouvement yoo xam ci développement rek la ñuy dox ak social keroog bi ñu leen waxee jëf ji liñ njëkk def mooy ñun sëriñ bi xamuñu Boubacar xamuñu kenn waaye xam nañ la yow te liñ bëgg ci suñu jaxaay gi te fas yéene koo def fas nañ yéene ànd ko ak yow ni nga ko bëggee bërki démb ba moo jógee ci yow wax la la la wax bi ma dikkee dañ ne mu keroog mënoon nga ko wax ne ko ànd nañu ak moom ndax ko àndal ànd nañu ak moom loolu lañ ma wax ñu ngi nii te wax naa leen ne leen rus naa jàkkaarloo ak nawle wala ab taalibe ne ko lii maa la ko waxoon wëlbati ko dikk di rus mbaa may am gàcce kooku moom jomb naa ko ndax kuy samaam sëñ Tuubaa kuy samaam Cheikh Rafal war ngaa mën a jomb luñ lay wax nga yaa ko wax te nga rus caa wax ñii mu fi ñëw wépp woowu ma leen ci politique waaye li ma leen woo mooy ñu fas yéene jiital jàmm waaye tegaat ci aw yoon ba mboolem lu ñu leen daan mën a nax ci politique mu dañ bis ni ki tey ndax mënoo ñu nekk cib koñ ñu tudde la ngay sëtu Serigne Touba war a jariñ nit ña génne woo leen ci jafe-jafe génne woo leen ci mboolem loo xam ne mos nañ caa nekk ba seeni ronq ji tuuru soo leen ci génnewu rek daanaka motoo la nga doon. waaye nag bi ma gisee ne bi ma ñëwee jaxaay depuis 2012 ma taxawal mouvement bi ñuy wax yaa salaam bi ma dellusiwaatee dund fi ñaari at laa gis ne jafe yi fi ne jaadu na Serigne ak mouvement salaam ak. képp ku bëgg développement ànd ak yow nga liggéey loolu bi ma wootee ci diggante bi may jàpp bis bi le 8 septembre pour war koo def consultation gratuite ak mboolem loo xam ne ni nit ñi danañ ci yëg seen bopp ci la sunu borom woomatal ñu jëmm jii di président Boubacar kamara Serigne Cheikh woo ma ñu ànd këram mu xamal ma ne ma pare naa ànd ak yow ci jàppale la la nga bëgg a jaxay loolo su ko defutoon duma ko waxal ndax maanaam nit ki jamono booy wax. tey kilifa ñu dala déglu nag a wax loo xam boole doo ko rus a waxaat keroog bi mu waxee li ma njëkk a wax mooy jaxaay ga nga ne ak feneen fudul jaxaay li ma pare mooy taxawal defar Sénégal kon Boubacar sëriñ euh, président ñoo ngi lay ñaanal sa yéene ji ak ki nga àndal ak ko képp ku bëgg a ànd ak yow yàlla ko sunu borom jàppandal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaax fee jafey jaxaay nag defe naa ne gis nañ ko jigéen ñi ku leen dimb ci dimbale ci maanaam ay ay ay ay formation dana baax lool ci ñoom ndax lu mel ne soxna yii nga xam ne mooy soxna xarile yi ma xam ne mën naa ko ci tudd ñi ci des ñëpp boot ci ginnaawam euh, li mu yor bari na ay nit ñu fi ñëw gën ngaa néew ci liñ leen di dimbalee du weesu ñaar fukki junni ci lu gàtt gàtt gàtt dañuy doon ay ñaati téeméeri nit ñetti téeméeri jigéen cent mille francs lu mu leen di deriñ te cent mille francs yi cinq mille yi bu ñu leen ko joxee damay gis ne cent mille yi euh, président suñ leen ko joxee kenn ku ci na ci ñoom junni bañ la cay jox nga dem kala ko jox da cay toppaat ne la danaa ci am juróom fukk ci téeméer bi ciy topp nga am ci juróom fukk te danga ma jox sama junni kooku dimbalewu la daf lay dunde loolu nag sëñ bi dañ cee war a yeewu xam naa sax ñu bëri danañ jàpp ne damaa jóg ngir gàllankoor leen waaye ah kay sax bu ma neexee ndax ñi awma lu dut ñoom li tax awma lu dut ñoom mooy ku ci dut ab murit dib tiijaan loo mën a doon bëgg nga sëñ Tuubaa lu ma ne nga lu may taxawal fii ba Cissé cinquième journée euh, cinquième édition journée culturelle Mamour Diarra bi may def Cissé juróomi kaar lañ taxawal fayu ma ko mboolem loo xam ne lu rafet la ñoom ñoo ko def seen doom yaa ngi nii gis nga leen groupe jàmm ji lañ tudd jàmm ak salaam moom defe naa baatu olof ak baatu arab rek la koor gi fii lañ taxaw lu néew néew néew jël nañ ñaar fukki junni wala fanweeri junni def ko ci ay ndogu kenn dimbalew leen ci kenn dimbalew leen ci loolu laa bëgg maanaam waxtu wuñ jógatee bëgg dara ñu am ci ndimbal loo xam ne non seulement bu jógewul ci yow jógewul ci Cheikh Ibrahima yi jógewul ci manit ñu yëg seen bopp ne ñoom ñoo ñàkkal seen bopp lii ba def ko nit nag bu fekkente ne danga ko bëgg a euh, lappaloo jën danga nga koy wan ni mu koy nappe waaye bul ko may rek saa bu di koy lekk desee yax dem këpp ca biir di doolu loolu desu ko def nit ki da koy dimbale dimbale bu mat sëkk kon nag jàpp naa ne lii mooy seeni feebar ak leneen ak leneen ak leneen loo xam ne bu àggee ci ñoom ñi gën a xam seen bopp danañ ko jëf ginnaaw guddi na te ku ne xam ne ne sonn nga Touba ginnaaw yàlla tey jii li tax nga ñëw fi mooy waaye Touba war nga faa nekk démb ba heure bi tey ba waxtu yoroon ngaa nekk Touba dafa fanaanee dox bët set Touba xam nañ la fa daj lépp njabootu suñ Touba gépp ànd nañu ak yow kon nag jàpp naa ne fii nii damaa bëgg ñu ñëw ànd ak yow forcé wu ma kenn nag waaye ku bëgg a jariñu ñëwal laa wax te xam naa ne lim bëgg sëñ Touba dana jàpp Cheikh Ibra dana jàpp te danañ ci jàpp noonu kon ku ñu jàppale ak moom jàppale ko ndax yow séqoo ko ak kenn bëgg nañ li nga bëgg a wane Sénégal nga ñëw fii taxaw ci jaxaay wan ko nit ñi li fii di seen ndimbal ak bëgg-bëgg nga ñëw def ko te danañ def teset yi def mboolem loo xamante ne bi dana firndeel ne yaa ko fi def ndax boo dëkkee nit mu waral la te mënalu la dina jariñoo bu fekkee nekk nga ca àll ba te mënal ñu tem te bëgg do di sénégalais boo dikkee ñu ànd ak yow ci li nga bëgg kon noo ngi la ñaal suñu borom jàppale la ci barke Cheikh Ibrahima Fall